je parle aw moom moo quoi parce que <laughs> tellement que dañ ma dañ ma hmm. parce que je pense que euh, Ablaye c'est la première fois ma ne ñu bokk plateau ah. <laughs> ah oui ah oui oui. c'est la première fois ma ne moom ñu bokk plateau ci télé jox bi waaye yow réussir loo xam ne kenn mosu ko réussir ci Sénégal <laughs> donc euh, je l'appelle Fergie Sarr. pourquoi Fergie. ah Ferguson. Ferguson ah. Ferguson. Oh. Ah, ah, moom xale yi ñu ko Ferguson. man mënuñu. donc Ablaye Ablaye modèle la modèle la à à à booy man booy xool nit ku ku jub nit ku màndu. nit ku am respect ci ci maanaam ci ci réew mi ak ci beneen nit ak ak même à l'extérieur jàppal Ablaye moi euh, il m'a beaucoup inspiré dans la dans la vie et puis il m'a beaucoup aidé dans la vie ku ne xam nga ni man nitu tempéré la nitu tempéré ma la mais il y a ma à ma canaliser euh, di ma conseiller di ma jaarloo ci ci yoon euh, Ablaye m'a beaucoup aidé euh, parce que dama jóge teel a jóge football Sénégal mhm. bu jógee ñëwaatee Sénégal Ablaye mën naa ni moom moo dugalaat maanaam ci ci waaju football Sénégal parce que aujourd'hui ñu bare mhm. ñu bare loolu duñ ko am te yombul parce que Sénégal dafa ay ay réalité mhm. te boo ñëwee ci ci ci euh, ñibbisee Sénégal déjà avant may ñibbisi en tant que joueur comme ni mu ko waxee bon du ma répéter en tant que joueur tette na ma jaar ma ci yoon euh, tegal fi sa tànk defal nii defal nii te lu ma jaarloo la daan def lu kenn mënul am ci man moom mu koy am mm-hmm. ñëpp mën nañ ma ci ñëpp laa wax mën nañ ni ma bàyyi du ma mais moom su waxee ma bàyyi donc parce que dama ko dama ko def mag def ko modèle suñu ñaari njaboot yi jaxasoo donc Euh, mën nañu li ci nekk Sénégal yëpp yëpp mën a ma ñu même Dakar mën ñu dëkk ñu naan liggéey mën a ñu dëkk duñu duñu tàggoo guddi duñu tàggoo bëccëg mu nekk euh, un un technicien de très très très très haut niveau ak assez de recul parce que xam nga xam nga booy jàng métier man dama am chance quand même mën naa ni maa ngi sant yàlla baax baax man dama am chance quand même dans la jaar ci ay loxo may joueur ak su may entraîneur jaar ci loxo maanaam ay ay mentor yoo xam ni dañ lay dañ lay dañ lay guider ci ci ci yoon bi nga jëm moo tax après euh, daa def formation académique daa def euh, c'est-à-dire que dam di diplôme universitaire tout ce que tu veux daa def formation institutionnelle de diplôme diplôme d'entraîneur XASCAF euh, de diplôme français am naa ko mais dafa am diplôme oo xam ni kooku kenn du koy kooku mhm. yaa ngi koy jàng dans la vie et man chance boobu laa am ak Ablaye

c'est que li mu boole dafa bari ba nga xam ni donc man dama ko daan copier ci lu bari bari bari bari bari di di jàng ci ci ci moom donc euh, loolu mooy sama sama après maanaam moom du ma tay entraîneur jour cest à que c'est mon grand frère mm-hmm. xam nga dama jël xam nga man ku ma xam sama exigence mm-hmm. ma jël sama tom tey bu am tey vient d'avoir dix-huit ans en mois de février. ah oui tuddee ko waaw mi ngi football en France. Mm-hmm. dix-huit ans tuddee ko Abdoulaye Abdoulaye Sarr mu mu mu tuddee ko tey boo ma koy tuddee yëgu ci yëgu ci dara. dafa ñëw mu ngénte la moo gis sa femme bañ toog toog toog toog ñu waxtaan euh, Chérif Amad de ndeysaan tey mu ngi ci kër gi yàlla na ko yàlla yërëm euh, euh, nii. tur tur mooy jóg ñu tur doom tur ak Abdoulaye Sarr mu commencé jooy lo lo Abdoulaye lo lo lo loolu la ci am ah. donc pour dire que <laughs> ah, tey vraiment tey sama xol dafa tooy quoi parce que euh, et puis devant tout le Sénégalais devant tout le peuple sénégalais vraiment je lui dis merci. Mm-hmm. parce que quand même euh, c' est c' est c' est un c' est c' est un modèle Abdoulaye Abdoulaye c' est un modèle mais Sénégal. bu fi jooy nag. oh <laughs> moom nag lii moo ko yàq <laughs> coach bu fi bu bu fi jooy nag yow non non xol bee tooy li mu wax euh, c'est c'est un modèle quoi Ablaye Seye mënu ma wax déjà Ablaye Seye je de larmes c'est c'est impossible parce que c'est le moment de dire merci parce que Sénégal yu bëri xamuñu ko mm-hmm. il est il coin il est calme il travaille mm-hmm. très exigeant mm-hmm. très regardant et très détaillant aussi et et c'est que Sénégal des fois les gens de valeur sont isolés. Mm-hmm. te Abdoulaye c'est un homme de valeur. Ouais. Voilà. <laughs>